waaye nag ci sartu ba mu fay ñëw fekk mu bàyyee nàmp waaye bu fekkee ba fa yaayam di ñëw moom ma ngay nàmp ba tey nga xam ne kon nàmp na soo mu bàyyi ko ci sa baay day mel ne kon yéen a bokk baay kon du ngeen mën a séyati watata zawaju dana sañ a séyeg almaratu jigéen ibna zawjati abiha doom ji góor yi soxna si baayam min rajulin tukkee ci góor xëy na yi ko dul baayam sa soxna sa baay bu fa indaale doom ji góor te bu fekk nga jigéen mën ngaa séyeg sa doom yi jiit lay bàyyi joojee di góor fekk yow jigéen nga xam ne ñooyamoo rek ndax yow benn nga nekk góor mbaa nga nekk jigéen boo doonee góor nag ka fi sa soxna sa baay indaale mën nga koo takk soxna sa doonee jigéen ka fi sa soxna sa baay indiwaale te muy góor mën nga koo def jëkkër mën ngaa séyeg moom la bëgg a wax baye joosa na dagan lil xurri ñeel gor wala xam ji ak jaam nikaahu arbaxi xaraira takk ñeenti gor muslimaat ñu di ay julit aw kitaabiyaat wala ñu ko jub téere dafa wax ne moo xam yow góor gi gor nga moo xam jaam nga sañ ngaa takk ci soxna ba àgg ci ñeent bu la neexee nag ñeent ñëpp nekk di ay gor te di ay julit bu la neexee ñu nekk di ay gor te di ay kitaabiyaat maanaam te nekk ci dina yahud mbaa nasaraan kon daal sañ ngaa takk ñeenti gor ñi say soxna moo xam dañ di ay julit moo xam ne ñoo bokk ci dina yahuud mbaa nasaraan loolu yow mi góor tey gor sañ nga ko ba tey jaam bu góor it mën na ko wayu xam di ñeel na jaam bu góor nag nikaahu arbaay imaayin takk ñeenti jébéer muslimaat ñu di ay julit maanaam nag yow yow góor gi nga xam ne gor nga doo sañ a jekki-jekki takk jaam bu jigéen muy sa soxna lu may sarte ñu ciy bëgg a wax waaye fi mu toll nag mooy yow jaam bu góor nga kon mën ngaa fekk jaam yu jigéen ya yéen a nawlonte nga takk ca ba takk ca ñeent ci kaw na ñu nekk ay julit ndax da nga ne woon ku nekk ci diine yoxoon ba nasaraan bu doonee jébéer doo ko sañ a takk gor sa nga sañ a takk waaye sañ laa takk jaam ba moo tax mu ne bu doonee jaam bu góor daal mën ngaa takk ci ay jaam yu jigéen ñeent ñoo xam ne dañoo nekk di ay julit waaye nag bi nekkul julit moom doo doo ci mën a takk walil xurri ñeel na gor daalika loolee in xasiya ndem ragal na alxanata njaaloo wala may jitte amut tawlan can lil xaraa iri ñeel gor ya xam nga li weesu léegi mooy jaam bu góor takk jaam bu jigéen bu ko neexee dem ba àgg ci ñeent te ñu di ay julit mu la yow nag bu fekkee ni gor nga doo sañ a jekki-jekki takk jaam yow mi nga xam ne gor su góor nga suñu laa takk soxna soo xam ne day jaam bu jigéen lu may dangaa mënta am la ñuy cane gor te it jàpp nga ne moom boo tëkkul soxna faaw nga njaaloo mooy doo mën a téye sa bopp su boobaa kon daañu la may nga takk jaam bu jigéen waaye boo mënee am li ñuy cane gor rek doo sañ a takk jaam bu jigéen bu fekkee amoo ko waaye mën ngaa téye sa bopp regalu laa njaaloo it ba tey noonu doo mën a takk jaam bu jigéen wala yaa adil na yemale bay na nisaa yi diggante ay soxnaam bokk na ci yi nga xam lu war la ku yor lu ëpp benn soxna moo xam dañ di ay gor moo xam di ay jé dañ di ay jébéer moo xam dañ di ay julit moo xam ne nekk ci diine yahood mbaa nasaraan da nga leen war a yemale ci wàllu nekk gi nekk kee guddeeg bëccëg jàllu nekk kee guddeeg bëccëg loolu moom mënta ñàkk xam ne boo nekkee kee guddeeg bëccëg dem nekk kee guddeeg bëccëg waxale yi war na ko ànd fa xatu dund ba war sukk naa ak dëkkukaay ba te xadri wuj ji ci kem kàttanam sa soxna yaa ko war a dundal yaa ko war a dëkkal kem sa kàttan rek ca nanga ko mëne wala xas na déetug seet bi fil ma biiti ca panaan ma li amati yi ñeel jébéeram wala li ummi wala di du jaageelu ñeel umm wala tam sa jaam bu jigéen wala sa umm walat umm walat mooy jaam bu jigéen boo xas amal doom ñooñu moom yëmaliwu leen ak soxna jamono yi jaam amee su amee jaam bu jigéen moom saa yu ko neexee joteeg moom rek moo xam ku mu amal doom la moo xam ku mu amalut doom la waaye kenn du ko boole ci ay ganag di nekk fa moom guddeeg bëccëg door a jàll ca keneen mel ne soxna ya soxna yi nag moom ñu fàttaliku ne bu xësee yor lu ëpp benn soxna rek ñoo war a yem ci nekk ga tàmbalee ci nekk kee guddeeg bëccëg jàll nekk kee guddeeg bëccëg moo xam soxna ya ñee da di ay gor ñee di ay jébéer maanaam ay jaam yu jigéen wala ñee nekk ay julit yu jigéen ñee nekk ay yahud mbaa nasaraan wala am ca ku wér am ca ku wéradi wala am ca ku mage am ca ku ndawe lépp ñoo ci yemoo yow daal yow jëkkër ji ndegam dara dalu la man ngay nekk fakkee jàll fakkee mbaa boog da ngaa wéradi waaye teewul nekk fekkee guddeeg bëccëg jàll nekk fekkee guddeeg bëccëg yomb na la ba tey ndax wéradi nga demewul doona kon faaw nga war a sàmmoon teeg loolu ci kaw nag ñu bokk nekk ci benn dëkk nga xam ne ay ay looga dana yomb bu fekkee dañoo nekk ci ay béréb yu sore nag moom da ngay seet nu mu jàppandee rek bu fekkee ne dem nekk fekkee ay bis jàll fekkee moo la gën a yomb wala nekk fekkee weer jàll fekkee weer nu mu jàppandee ndegam nekkuñu ci benn béréb moom nu mu jàppandee rek nekk ga rek lañ bëgg nag mu yemoo nde sax jote ga ci góor ak jigéen duñ ne na yemoo mbëggeel ko ca xol ba mu ne su ko yemale duñ ne na yemoo ba tey niñ ko waxe woon koddaay la ak dëkkuwaay ya yépp ak dund ba mën nañoo bañ a yem bu fekkee ni bokkuñu benn béréb mbaa nga xam ne dañoo wuute ci wàllu daraja mel ne ñee dañuy boroomi daraja kon mën nañoo gën le koddaay mën nañoo gën li ëpp dund ndegam bokkuñu béréb bu ñu nekk ci wàllu jote bi daal la cay aay mooy bu nekkee fa kee te amul ci moom ak bëgg mu téye boppam bañ a joteeg moom ndax bu jàllee ci kam bëgg am cawarte rek loolu daal moo cay aay waaye bu dul loolu moom ci wàllu jote gi moom day seet nu mu saware ak nu yaramam mel rek mu defee noonu baax na dañoo bëgg nag ci ay ayloo bi guddi gi di jiitu bëccëg bi nga xam ne da ngay tàmbalee ca kee nekk fa moom guddi yendu fa nag ba jant ba soo nga bàyyi koo fa jàll fa ka ca des bu fekkee da ngaa ñibbisee ci ab tukki nag moom nee nañu fu la fa neex rek ci bëccëg bi ndegam ci bëccëg nga ñëw moom fu la fa neex rek ca say soxna mën nga faa wàcc diiru bëccëg boobee xëy na nag li gën a jàpp ni mooy saa yu ñibbisee ka nga xam ne moom la fekk mu aay rek mu dal fa moom bu ko defee doora jàll ci ka ca des bu dee ni nga xam ne moom lañ aadawoo dëkke fii nag nga xam ne góor ga day am néegu boppam jigéen ña ku ne am néegu boppam kon nam jàppandee rek mën na moom ci boppam ku aaye mu fekk si la bu ko neexee itam ku aaye fekk si ko loolu lépp daal bu fekkee yemale nga am na rek dal nay baax su fekkee daa tawat nag ba nga xam ne mënul di dem fa kee dem fa kee kon mën naa seet bu fekkee amul nekk boppam ku ko neex rek ci soxna ya mu nekk foofu ba tane ba mën a tàmbaliwaat di wër nam daa wëree wax ne ne bu fekkee day tukki tukki boo xam ne itam du tukki jaamu yàlla nit ki du aj kon day tànn rek ku ko neex yóbbu bu fekkee day tukki boo xam tukki jaamu yàlla la te kenn ku nekk ñoom da ciy xër nag kon mu tegi koy bant ku bant ba dal ci moom rek mu ànd ak moom yemale ay soxnaam nag ca na mu ware alquran da koo diisal lool yonent bi tam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam diisal ko ci addisam lool alquran sax nee na fa in xiftum alla taadilu fa waxidatan bu fekkee ne ragal ngeen ne du ngeen mën a yemale seeni soxna kon na ngeen yem ci benn dong boo ñëwee ci addis mu wax ne ida kaana xinda rajulim ra'ataani falam yaadil baynahuma jaa yawma alqiyamati wa shiqquhu saaqitun addis ba nee na bu fekkee nit dafa yor ñaari soxna te yemalewu leen su bis pencee bu dikkee jeng gam jengoon jëm ci kenn ka bàyyi kenn ka day feeñ ci jëmmam nga xam ne genn wàllam day dagg rot loolu moo tax diisal nañ ko lool ba tey borom xam-xam yépp maase nañ ci ne yemale googu mënta ñàkk ñenn ñi sax nee nañu koo xam ne doo def yemale googu doo dayati seere doo dayati ilimaan wala nafaqata deetub dund li zawjati ñeel soxna sa xataa yadduxula ba te mu wéetee bixa ak moom aw yu doxaa wala dee fi ko woo ila duxoo li jëm ci wéet ga wax yeta fekk na moom mi man doon na jigéen joo xam ne yu taw def na mën a laal mis duxaa ku toll ne moom buñ ko xësee may soxna nag ba mu xës wéet ak moom rek te moom góor gi mag la maanaam mu kàllaf la kon dund ba dal na koy war ak dëkkuwaay ba ak koddaay la ndegam xas na wéet ak moom doonte soxna sa mënees ta jotee ak moom it waaye wéet na ak moom rek wala doonte sax soxna sa daa tawat du tee rek moom dund ba ak yooyu daal di koy war kun ko may kese nag te jotagu te wéet ak moom nag bala ko caa dund war dañ ko ko jébbal ne ko dara doxul sa digganteeg moom ci nga joteeg moom te fekk itam ñu mën a joteeg moom kon nag bu ca boolee moom jëkkër ja di mu kàllaf ba tey dund daal koy war ak yee ca war a ànd yépp ne bu fekkee ne moom soxna si wéetugut ak moom te it gone la boo xam ne mënusta wéet ak moom mbaa daa tawat ba mënusta wéet ak moom kon may may kese ga du tax dund dal di ko cay war tey yooyu jamono duñ ko boole ci ñu war a ay ay loo ndegam daa yor beneen soxna mbaa yeneen soxna waaye nag bu fekkee ne soxna su yees si mag la wala bu dee gone it gone guñ mën a joteel la te xës na wéet ak moom mu daal di yem ak ku agsi ca kër ga moo ko war a jox dund ak koddaay ak dëkkuwaay te it bu fekkee ne manees na ko boole ci ay ga ndax fa mu nekk soriwut ak te soxna yam njëkk na yor nekk ba tey faaw ñu war ko boole ci ay ga nga xam ne kon fii mu nekk nii boo yoree li ñuy wax ab takkoo ci dëkk ba nga xam ne ay ay looga du la metti ndax benn dëkk bi dong la faaw day aajoo rek yamale googu du mën a ñàkk boo nekkee ci kër gi nga dëkk ak soxna yooya ba ay kooku ak siitam nga dem foofa wanikaaxu tafwidi siib joyal jaay sul aji dagan la waxuma moom ay yaqidaahu moo di ñu fa sëy ba dafa def nag wala yadd kuraani waaye wala yadd kuraa te lu ñu tudd rek sa daaxal ak can mu gën a yelloonteeg ay yaqidaahu ji ko jiitu nee na li ñuy wax sëyib joyal yoon nangu na ko maanaam mooy ñu may nit soxna te waxuñu ko ne ko can gi nangam lay doon xam ne ci gannaaw ba la ñu door a leeral na can ngay toll waaye waxuñu woon can ga nu muy toll loolu manees na ko tuma laa yedduxulu topp du wéet nag moom jëkkër ji dihaa ak jabar ja xataa yafrida mbate mu dogalee can laxaa ñeel ko ndegam dañoo maye rek noonu te waxuñu can nu mu war a toll nag balaa góor gaa wéet ak soxna soo ñu ko may na ko leeral ne ko nangam kat laa la bëgg a jox can ba xam soxna na nangoom du nangoo fa in faral na yem dogal na laxaa ñeel ko sadaqal misli canu kem lësimaxaa mu war ko maanaam bu nekkoon nangam laa lay jox te loola toll ne la ñu jox ay moroomam kon jigéen ñi sañ te bañ ndax ku la defal la ñuy defal say moroom rek wàcc wa in kaana dem nekk na aqal la di ko yées fa hiya kon moom mu xayiratun ku ñu tànn loola fa in karihatu dem sib na ko rek furiqa teqaleef bay na xuma seen diggante nee na bu fekkee ne kon nangam laa lay jox can te matut la ñuy jox ay moroom moom jigéen joojee kon jigéen jaay seet bu ko neexee mu nangu bu ko neexee mu bàyyi ñu dindi sëy ba illaa an yurum di yaxaa dara bu da koo nangoo gërëmloo aw yofrida wala mu nangoo dogal laxaa ñel ko sadaaxa misliha canu kemam ma fayal samuha tam koy wax lu may nag la mu ko njëkk wax ne ko moom laa lay jox can moom yées na la ñuy jox ay moroomam waaye daa wëlbatiku nag nangu ko caa yokkal leneen mbaam wëlbatiku sax fara nangu koo jox la ñuy jox ay moroomam su dee ba mu ko nangoo yokkal la te xolam sedd ci yokk ba kon ba tey baax na su wëlbatikoo nangu koo jox la ñu ci ay moroomam nag moom du sañ a bañ ni ñu ko waxee woon léegi wa idar tadda ndee murtat na ahadu zawjayni kenn ci jëkkër ak jabar in fasaxa kon firiku na annikaahu sëy ba bi talaaxin ci tase waxatu xiri waxeef na ne bi xëy di talaaxin ci lu tase te nga dégg ba tàyyi na booy jàng buntum nikaax bi talaaxin ak bi xëy di talaaxin buñ buñ nee fasxun bi xëy di talaaxin ji moom njëkk a wax kooku mooy sëy boo xam ne moom ñëpp maase na ci ne awutu yoon baaxut amu ci genn wuute foofu la ñu tuddee fasxun bi xëy di talaaxin bu fekkee am na wuute nag moom doonte sax ci biir ngir mi amul ci wuute waaye ci biir ngir mi am na wuute foofu la ñu tuddee nag fasxun bi talaaxin kon na nga dégg ñaari baat ñooñu waaye nga jàpp ko noonu bu ñee dañ koo firi ci kaw fase nag day mel ne ko nañ wàññi pase mooma xam ne bu ko takkaatoon bu fasewaat ko ñaar lay doon kon ngay wàññi waale mooma buñ nee joxe talaax yi nag kon du am mel ne pase buñ fay tudd li mu ne in fasaxan nikaaxu bi talaaxin daa bëgg wax ne sëy ba tas na ci kaw fase moo xam ne buñ mënta fay li la te jooju wax moo gën a wéer nga xam ne moom ma murtat bu tuubaatoon ñëwaat ci lislaam da koy takkaat takk bu yees te it dañuy jàpp ne njëkk na koo fase men nga xam ne takkaat bu yees boobee su ko ca fasewaatee dañuy compter fase mu njëkk ma ak mii mu fasewaat loolu mooy boo jàppee bi talaaxin soo jàppee nag bi xëy di talaaxin ji moom da ngay wax ne sëy ba tas na te kenn du ca tudd fase nga xam ne su wëlbatikuwaatoon tuub moom ma murtat ba ñu fasaat seen diggante itam dañuy jàpp ni mësu koo fase benn yoon su demoon ba fase ko itam dañuy door a wàññi moom rek mi am fase waaye la ko jiitu woon kenn jàppiwu ko fase wa isa aslama dem tuub na alkaafiraani ñaari yéefar sabata kon ñu sax ñoom ñaar xalaanika hima ci seenub sëy fekkoon ne ñaari yéefar dañu di jëkkër ak jabar ba yàgg na ñu wëlbatiku ñoom ñëpp bokk dugg ci bokk dugg ci lislaam kon dañ leen di bàyyi rek ñu doon jëkkër ak jabar ba tey lu may nag seen diggante daa war a araam araamuk dappet dañoo jege ci askan ba nampaale goo xam daal moom daa war a araam faaw faaw bu dee loolu moom faaw ñu dindi ko waaye bu fekkoon ne maye nga amutoon kilifa rek mbaa amutoon can mbaa yu mel noonu rek mbaa can nga baaxutoon deesu ko faale maanaam du tee ñu bàyyi sëy bu mu wee waaye nag buñ ci gisee lu ko war a araamal faaw moom ni ki ñu jegee ci wàllu askan baa nampale moom faaw ñu dindi ko waaye aslama dem tuub na ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar fa dalika loolee faskun firig sëy la bi xëyu talaa xin ci lu tase maanaam bu fekkee ne dañ doon ñaari yéefar di jëkkër ak jabar kenn ko wëlbatiku tuub kenn ko des ci kéefar ga kon nee na faaw ñu tas sëy ba tas koo xam ne ñëpp maase na ci ci wax ji gën a wóor fayn aslama ndéem tuub na nag yee moom jigéen ji kaana kon mu nekk moom góor ga axaq di gën a yeyoo bihaa ci moom in aslama ndéem tuub na fi na iddati ci biir idda ja bu fekkoon ne jigéen ji moo njëkk a tuub ñu ne ko ah yow kat kon sa jëkkër ji nekk yéefar moom tàggoo ngeen waaye nag laata muy idda bu bay jeexal idda ji far jëkkër ji itam far tuub su boobaa kon ñu far ko ko delloo kon ñu far ko bàyyee rek ñu far wéy doon jëkkër ak jabar wayin aslama dem tuub na xoo moom góor gi wakaarante mu nekk kitaab bi yet di ko jug téere sabata kon mu sax aleha ca moom bu fekkoon ne góor gi moo njëkk a tuub soxna sa moom tuubul waaye daa fekk soxna sa doon kitaab ya maanaam nekk diine yahood mbaa nasaraan te xam nga yow mi julit sa ngaa jekki-jekki takk yahood ya mbaa nasaraan ya kon dega moom góor gi tuub na te soxnaam si moom daa bokk diine yahoon ba nasaraan su ko neexee téye ko rek noonu waaw ndegam sañ naa tuub bu noppi dem takki ko kon bi mu tuubee fekk soxna see loola mën na koo far téye rek bu ko neexee fa in kaaran dem nekk na nag majoos yi yatan di ab majoos fa aslama te mu tuub baax na xoo ci gannaawam makaanaxaa ci palaasam ba mooy fa saasay saasa kaanaa kon ñu nekk ba tey saw jee ni di jëkkër ak jabar ndegam góor gi moom tuub na bàyyi kéefër ga te fekk soxna sa nag moom nekkoon majoosiye maanaam nekk jigéen ju jaamu xeram dëkkutoon ci diine yahood ba nasaraan kon bu soxna sa tuubee fa saasa ñu bàyyi leen ñu wéy ci seenub sëy waaye bu yeexee tuub ga rek ñu tàggoo lu wax naa wa in taaxara ndeem yeex na zalika loolee faqad baanat kon jigéen ji facc na min hu ca góor ga wa isa aslama ndeem tuub na mushrikun ab yéefar waaye ndaxoo te nekk na fa moom ak sëru lu ëpp min arbaxin ci ñeenti soxna fal yax far nataan arbaxan ñeent wayu faariq te mu teqalikoog baax yaxu na aji des ci ñoom neena bu ab yéefar tuuboon te fekk lam yore ci soxna ëpp ñeent dañ koy wax ne ko lislaam moom nanguwul ku yor lu ëpp ñeent waaye sañ ngaa tànn nag ci ñoom ñeent ñi la soob daal di bàyyi ci des tàggoog ñoom wa man laaxana ku rabboonteeg zawjatahu soxnaam sa lam taxil la kon du dagana ci loxo ñeel ko abadan mukk rabboonte it dina ko wax ci kanam la koy andi ak nañ koy defee ku xës rabboonteeg soxnaam nag jeex na dañuy tàggoo faaw faaw duñ seeti mukk mukk wa kazalika naka noone allësi ka nga xam ne yetta zawaj dana takk almarata jigéen ja fii iddatiha ci biir iddaam wa yettawhaa tem koy laal fii iddatiha ci biir iddaam ba tey jigéen ji iddaw ku ko takk ci biir idda ja jote caag moom ca idda ja mbaa dangaa bàyyi ba idda ji jeex waaye takk ba nga takkan ci idda ji ca nga sukkandiku rek ba joteeg moom yooyu yëpp du teemu araam araamu dappetu faawu faawu waaye bu fekkee dañ ko mayoon rek ci biir idda ja nag jotiwu caag moom dara ba idda ji jeexee nag ñu bañ a jàpp may googa te may ko ko may gu yees nag xam ne lu njëkk la doon ak may nag loola moom baax na
wala nikaaxa deetub sëy li xam di ñeel jàmbu góor wala li amatin du caagéen ñeel jëbeer te mooy jàmbu jigéen illa an yadana ndare bu dafa digle asay du sang ba jamono yi jaam amee la wax ne jàmbu góor du saña jekki-jekki takk soxna te amu ci ndigalul ab sangam jaam bu jigéen ba tey du sañ a jekki-jekki wut jëkkër te amu ci ndigalul ab sangam wala taaqidu du fas imraatun jigéen wala xab dun du caagéenu ab jaam wala man du caagéenu koo xam ne ala xayri diinil islaami nekk na ci lu dul diinil islaam nikaaxa imraatin sëyub jigéen nee na kilifa gay maye faaw day nekk góor waaye jigéen moom du mën a may ab sëy ba tey kilifa gay maye day nekk gor waaye du nekk jaam ci jamono yi amee teqale gor ak jaam waaye léegi amatut ba tey kilifa gay maye day nekk ab jullit ndegam jigéen dañuy maye jullit la waaye kilifa goo xam ne yéefar la du mën a du mën a maye jigéen joo xam ne jullit la
wala yeju suutu dagan an yatazawaja bu takkee ar rajulu waaja imraatan jigéen li yuxillaha ngir mu daganal ko li man ñal ka nga xam ne tallaqaha fase woon na ko talaasan ñetti yoon wala yuxilluha te du ko daganal dalika loolee nee na day araam ngay takk jigéen joo xam ne jubluwoo ci lu may bëgg koo daganalal ka ko fase woon ñetti fase ndax rek kooka mën caa jotaat fekki loolu nga ci jublu moom bu ko yoon xamee def nga lu araam ba noppi te di nangu mu dellu ca kooka waaye nag moom jigéen ji ci boppam bu fekkee ne moo fexe ba ak góor takk ko mu fexe ba tooñ ko rek kooka may ko baatam ngir mën a dellu ci ku njëkk it moom du ci wàññi dara moom waaye waa ji nga xam ne mooy takk ci boppam daal yéene ca jigéen ji mën a dellu ci ko njëkk na yor rek ak loolu daal mooy aay yow mi takk daal yow nga jublu ca loola waaw kay loolu daal moo koy araamal wala yu juusul dagan nikaaxul muhrimi sëyub aji armal li nafsihi ñeel boppam wala yaqidu tey du fas nikaaxan ab sëy li xëyrihi ñeel ku dul moom boo xasee armal ak mbaa xumra ba kera nga yewiku doo mën a maye soxna duñu la mën a may soxna xam ne kon day araam ngay maye soxna day araam itam ñi may la soxna xam ñu ko fase itam du ko taxa fasu wala yusul dagan nikaaxul maridi sëyub aji tawat ku tawat tawat joo xam ne tawati faatu la day araam ci moom muy takk soxna ndax day mel ne kon dafa yéene kooku alal moo tax mu di ko takk wa yuf saxu def na ko firi mooy dañ koy tas wa in banaan de wéet na biha ak moom falaxaa kon ñeel na ko asadaaxu can nga fi sulus ci sulus ba mu badda an mbir mi luñ njëkke wala miraasa te deetub dono laxaa di ko ñeel
bu ñu nee ku tawat tawati faatu sañu te takk soxna ndax day mel ni kon daa yéene kooku ab doonu kon dañuy seet bu fekkee far na wér ca tawat joojee kon dañuy bàyyi sëy ba wéy ndax mënees naa tawat tawat juñ ne yàggees na caa faatu te moom mi nag moom mu bañ caa faatu su boobaa kon dangam faatuwu ca wér na ca sëy ba dañ koy bàyyi mu jàll
su fekkee nag bañ ko yëgee dañoo daal dindi sëy ba te fekk jotewut ak moom dara kon dara du ca war ca sëy ba ndax jotewuñ dara ñoom ñaar li mu wax nag mooy bu fekkee jëkkër ja daa joteeg moom ba noppi faatu te fekk na tasaguñu woon sëy ba kon ndegam jëkkër ji faatu na des na ko jox can moom jigéen ja ndax wéet ga mu wéet ak moom njëkk muy faatu waaye kon dañuy limaale can ga ca ndénkaane ya daal koy génne ca sulus ba te teel koo jëkke génne ko waaye doon nag moom jigéen di ko def bu góor ga faatoo ca tawat joojee jigéen ca du ko doon walaw tallaqa doon te fase woon na al maridu aji tawat ja imraatahu jigéenam lasimahu kon war ko zalika loolee wakaanu te nekk laxaa di ñel jigéen ja almiraas doon min hu ca góor ga in maata ndem faatu na fii maradihi ca tawatam ja zalika joojee ni ñu aaye ku tawat muy takk noonu lañ ko aaye muy fase ndax bu fasee day mel ni daa bëgg xañ kooku ab dono nga xam ne kon góor gu tawat tawati faatu bu fekkee daa fase soxnaam fase ma dana dal waaye dañ koy wax ne ko lu yàgg-yàgg boo faatoo ci tawat ji moom faaw mu doon la nga xam ne bu tawat ji yàggee ba soxna sa sëywaat fi ba amaat fi ay jëkkër jëkkër itam du tee rek moom bu góor ga faatoo ci tawat joojee rek bi ka ko fase woon ci tawat ja bu faatoo rek faaw soxna sa bokk ci ñay doon na wa man tallaxa ku fase imraataho jigéenam talaasa ñetti fase lam taxil la kon du daganati la xooñal ko bi milkin ci sababu moomeel wala li kaayam du caageem takk xataa tankixe ba te mu séyeeg zawjan jëkkër xayra ju bokkut ak moom nee na ko fase soxnaam ñetti fase bu fekkee da koo takk bàyyi ko del ko takkaat bàyyi ko del ko takkaat bàyyi ko mu ñett yoon moom ku ne xam na ne moom ñett la moom ñëpp dogu nañ ci ne moom bala koo mën a takkaat faaw jëkkër dafa jaar ba joteeg moom bu tàggoog moom nag moom mi ko njëkk na fase ñetti fase mu door koo mën a takkaat waaye bu dee ci yoonu Maalik moom fase ñett mën naa am rek ci benn jataay ci benn kàddu ndax bu dee ci yoonu Maalik moom bu nee ko fase naa la ñetti yoon rek ci benn yoon du tee ñu jàppee ko ñett ba talaaxu talaasi fasem ñett fii kalimatin ci ab baat waaxidatin bu di benn bidaatun bidaa la ba yël samuhoo waaye dana ko war in waqaxandeem tàbbi na fase soxnaam nag ñetti yoon ci benn baat rek ni ki mu ne ko fase naa la ñetti yoon loolu parce que ñetti yoon la ci benn baat loolu pasem bidaa la waaye du ko tee dal te ñett lañ koy jàpp itam bu dee ci yoon ci gis-gisu waa Malick waaye ci gàttal rek bu la waxalee pasem sunna muy pasem yi ñu taam ba noppi nag bu sart yi xëttee rek nga xam ne kon pasem bidaa la moom lay bëgg a wax nag wa talaaqu sunnati pasem sunna mu baax lu ñu daganal la waxoo moom añ yu talliqahaa mooy mu fase ko fii tuxurin ci biir ak laab lam yaqrab xaa gu jegewu ko fii ci moom talxatan menn pase dong tumalaa yut bi xaxaa topp mu bañ koo tofal talaaxal meneen pase xataa tan xadye ba te jeexee alxidatu iddaja pase ci boppam nag sunu boroom da koo bëggut ba addis ba wax ne abbu xadul xalaali ilallaahi ak talaaxu waaye nag su demee bu mënta ñàkk dañoo bëgg góor ga koy def mu taylu ba sàmmoonteeg ni nga xam ne moom la ñuy tuddee pasem sunna te loola mooy na laaj soxna sa ba mu ko ne maa ngi ci laab maa ngi ci ak laab maanaam tolluwuma ci gis deret mbaa boog fekk moom góor gi xam na loola mu wóor ko xam ne kon ci laab la ko fasee te itam fekk laab ga jotiwu ca ak moom dara dara mooy bu mu xamee ne laab na ba léegi jotewut ak moom te it mu fase ko menn pase dong bañ koy def ñaar mbaa ñett te it bañ caa tegaat meneen pase ba idda ji jeex ndegam naru koo fay li ndax xam nga ndegam moom bu mu seegi ñetti pase moo koy dog kon bu ko fasee benn itam di fekk idda ji jeex bu ko fasewaatee pase ma day dal dañoo bëgg nag mu bañ caa tegaat meneen ba idda ji jeex ndax moom bu fekkee tàggoog moom dong la bëgg bu idda ji jeexee rek takkaat moo ko koy may waaye moom seen diggante ba idda ji jeexee jeex na kon sart yi bu ci dajee rek parce que mañ taamu amna muy passem sunna bu ci benn sart xatee rek mu daal di nekk passem bidaa sart yi ñu dal ko baamuwaat mooy ba mu koy fase moom jigéen ja daa toll ci laab te moom góor gi laab googee jotewu ci ak moom dara te it benn fase képp la ko pase te doliwaatu ca meneen pase ba idda ja jeex wala hoo ñal na ko arrajaxatu fayli si lët yi ci jigéen ja nga xam ne tax yi du dana bërëg maalam tadxul li fek dugut fil xaydati ñu bërëg ma ak saalisati ma di aj ñetteel fil xurrati ci gor awi saanit wala moom ñaareel ma fil amati ci jebeer dafa wax nag boo fasee jigéen te àggoo ci yemukaayu buum ya di ko fasewoo ko ñett kon li fekk it dajee jeex man ko fay li fay na mooy nga wax ne rek jëlaat naa sama soxna moom ci boppam sëñ ta bañ mooy jigéen ji sëñ ta bañ ay mbokkam sëñ ñoo bañ waaw kon li fekk it dajee jeexul man nga koo fay li moo tax mu ne jamono yooyu gor dafa am jaam am mu ne nag bu dee gor li fekk dugg ci deret ñetteel ja man nga koo fay li bu dee jaam li fekk dugg ci deret ñaar ja man nga koo fay li kon ci takk-takk rek fekkee fasiwoon